moom la ñuy interpellé président de la république bis bu nekk ñu gis la ci télé yi dégg la ci rajo yi ngay wax mbirum foncier bi loolu léegi loolu loolu saar boobu mokk na ñëpp xam nañ ni réew mi foo laal góom la mu ngi metti ci wàllu suuf si waaye saafara bi nag ci sa loxo la nekk donc fii ku nun saafara bi la ñuy xaar président de la république askan baa ngi taxaw di la joxoñ di la déglu

loolu la ñu bëgg ma dàq parce que bu dàkkul dina dàkk ci nii mbaa ci ne te ñun nag ba fi mu nekk ni jaasi jibul paaka jibul yat jibul ay kaddu jib ay document wu dëgg jib parce que ay républicain lañu dañu jàpp ne nag réew mi fi mu tegu baaxul ci wàllu foncier bi surtout dañ ko war a jooyant dañ ko war a réformer pour que askan bi gis ci seen bopp parce que lii raam ci li ci ci ñag ba la jëm balaa nag ñax mu tooy ñax mu wow di làkk ñax mu tooy ñu saafara ko donc maa ngi leen di sant di leen gërëm euh, ñi ñu jox assignation aussi war na il faut que ñu wax ci parce que askan bi li len taxoon jog moy ñu régulariser les gannaaw état bi titre na fi pour ku nous ñu régulariser la nga am sa kayitu kóor loolu président wax nako depuis 2012 kep ku am permis d'occuper wala wala wala wala wala délibération ñu may le titre foncier gratuit loolu commencé na Dakar mais Sénégal du Médina rek Sénégal du Plateau rek Sénégal du Almadi rek Sénégal fépp la te fi sa mo gëna a Sénégal parce que fi moy donc buñu lolu amé am ay plus de 300 familles wala ont nako ñu demandé régularisation parce que dëkk bi yëpp lañu wara régulariser dëkk bi yëpp lañu wara régulariser am na ñoo ne nag ñoo gën farlu domaine liste pour ñu régulariser leen ñii am délibération ñii amuñu délibération ñu occupé liste boobu nak, xaw ma nu ñu ko nu ñu fu mu jaar ba ñu ñoom ñu jot ci liste bi donc ça veut dire que ah junj doy na xel liste boobu pas na fu ñu ko jëlee parce que ñoom xamuñu kenn ku fi yeewu parce que musuñu fi yeewu musuñu fi dëkk xamuñu fi kenn donc liste boobu lañ jël assigné ñi ñu sax xamuñu leen man premier jour bi ma tribunal maa ngi taxaw ak Daouda Thioune mais xamul ne man la man la porter plainte parce que dañ ko ne Ousseynou Diallo moo fi nekk rek juge bi ne ko xam nga kii mu ne ko déet kii xaw ma ko kii mooy Ousseynou Diallo xam nga toolam mu ne ko déedéet ma ne ko euh, toolam nga dégg nga ne yaako moom booy naan maa moom nag day fekk au moins nga xam ko. lu topp assignation parce que xamuñu nit ñi dañuy làmbatu rek kan moo dëkk fii kan moo kii ñu bindal assignation indi la loolu nag dañu ne ñun dinañ ci xeex luñ ci góobee gar ko donc suñu bakkan xeeb nañ ko ci mbir.